jiite comité bi nga xam ne mooy taxaw màggalu sëñ Abdou Khadir Mbacke mu di ko jiite ci turu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Cheikh sëriñ Abdou Khadir Mbacke tàmbulee di sant ci taxawaay yi weesu ak yi tey sëriñ bi sant na bu baax ndax uh, am nañ xel mu dal ci bi ñu ñëwee ak soxla ñu indiwoole indiwaale gouverneur ak ñi koy jàppale yëpp muy chef de yi ñu teew ñëpp ak maire Touba sëriñ Abdou Lahad Ka ñëw teew nii yëg na ne kon xel mën naa dal bu baax a baax ni mu daan dale ca la weesu kon mi sant ci loolu bu baax di ñaan sunu boroom borom àggalañ ci jàmm waaye ñëpp ñu ci ndam ndamit nag njariñ la ndax ki ñuy wooteel bis bi moom kilifa yi wax nañ ko ku jar wooteel bis la sëriñ Abdou Khadir Mbacké radiyallahu anhu kenn la woon ci kennuy diine réew mi it soxla nañu di ko fàttali nit ñi ndax réew mi jikko ju rafet moo koy doxal sëñ Abdou Khadir nag jëmmaloon na jikko ju rafet ni ko doomi Sëriñ Tuubaa yëpp jëmmale doon koo xam ne it euh, misaal la ci ne ni yàlla bëgg ab jaam mel ni manis na ne mel rafetaloon na diggam ak boromam rafetal diggam ak jaam yàlla yi àq yi ko sunu borom gàlloon yëpp matal na ko door a ñibbi aljan taxawaay yu mel noonu nag ku ko am bàyyi ko fi njaboot gi soxla nañ di ko teewalaat ci seen kanam ngir ñu mën cee jël ay bind ngir su ëllëg mën a jàll ndax suñu borom kat buy wax nit ñi jàng ci la laqad kaana fi qasasihim ibra ibratun li ulil albab maa kaana xadithan yuftara walakin tasdiqa alladi bayna yaday alquran moo ñu jàngal wa kulla naqsu alayka min ambai rusuli ma nuthabitu bihi fuadak kon dafa mel ne màggal li ñuy def yépp dëgg-dëgg mooy fàttali nit ñi seen démb ngir ñu am fu teg seen tànk mag ñi fi jaaroon ba am ndam ñoo xam ne bu buñ xeñtoo seen mboor danañ am ndam sëñ Abdou Khadir Mbacké nag kenn la ci ñooñu ci biir njabootu sëñ Tuubaa gi taxawaay yu rafet yi mu taxaw ci diine euh, nekk gi mu nekkaloon nit koo xam ne ku amal njariñ ñépp la nit ñëpp it yàlla daf defal ko xabul ci ñëpp ñëpp bëgg ko ndax jikko ji mu yaroon ak melokaan mu yaroon loolu nag jàpp nañ ne jamono da koy soxla saa kon bu kilifa yi wootee bis di ko ci wooteel jaadu na ndax njariñul leen moo ci nekk waaye su kilifa yi jëlee matuwaay yu mel nii fas yéene bis bi jàkk mel ni mu war a mel loolu it sëriñ bi dana ci sant bu baax baax sant la ci yow gouverneur ak ñi nga àndal ñëpp ñaan suñu borom sàmm leen dëgëral leen waaye sant ci baaxit nag mairie Touba sëñ Abdou Lahad Ka mi jiite ko wax ne taxawaay yu rafet yi yaweesu daa wax dëgg yàlla taxawaay yu rafet rafet la woon ren it jëlaat na engagement yoo xam ne am na ci yoo xam ne du war teefam en tant que maire waaye da ko def ni mu ko waxee en tant que talibé loolu sëriñ bi nee na mi ngi bu baax di ñaan suñu borom leen dëgëral leen itam euh, barke ak ngërëmul sëriñ Tuubaa bi ñu koy séenu yàlla ko ci yàlla def baax it nag ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi muy comité bi nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi la ko taxawale ànd ko ñoom muy ay bokk di ay talibé saa bu wootee ñëpp jóg lépp ñoo koy ànd di ko def sëriñ Abdou Khadre bokk na ci li ko yàlla jagleel ay nit ñoo xam ne ñëpp mën nañu wax ne kilifa lañ fa nekk ñooy ñëw takk seen i dëgg takk seen i laxasaay ne ci liggéey bi ngir teeru gan ak dalal leen loolu bokk na ci li ko suñu borom jagleel moo tax it ñaare fu ñu wootee ñu mel noonu ngeen fay gis loolu jaral suñu borom moo tax sëriñ mi ngi sant ñëpp di ci ñaan di sant it taskati xabaar yi nga xam ne ñoom itam ah, am nañu rafet yéen a ju rafet lool ci ne yu mel nii it saa bu jàllee nit ñi jariñoo ko ñoom seen loxo nga ci biir ndax du ñëpp mën a màggal si waaye liñ fay wax la fay jóge ci njariñ mu ñëpp mën nañ cee jot ndax ñoom tax ci xabaar yi kon su baa ngi bu baax di leen ñaanal di fàttali mbokk yi ne bis boobu nag bisub diine la kon képp ku fay ñëw na nga sellal sa yéene rafet njortu ci ne it nag boo fa dikkee loo fa ñaan yàlla yàlla mën na ko nangu ndax borom bi subhanahu wa taala du may di nangu te mayoon na sëñ bi xadir loo xam ne génnam àdduna du tax mu nangu mooy saa bu ñaan yàlla yàlla nangul lu ko waaye jëfalit am ci ngërëmul yàlla ndax ku yàlla gërëm la te ku yàlla gërëm loo laal ci jëfam am ca gërëm kon kuy ñëw na nga bàyyi wàll xel loolu xam ne yaa ngi ñëw ci bisub nitu yàlla doomi Sëriñ Tuubaa ku liggéeyal yàlla ci njaboot gi liggéeyal ko ci diine ba am ngërëm kon loo laal ci bisum rek mën nga caa jariñ bu faw kon ànd ak yar ak teggin xam ne it dañuy ñëw di màggal si di dundal si sunna ndax Sëriñ Abdul Xaadir mooy sunna daana waxal boo xam ne baatu sunna ab sunni yu laa man du ma ko bàyyee kenn bañ nga ko ba ci aw dundinam wépp wépp suñu la ci doon dund dundinam wépp boo xam ne saa boo seetloo jëmam te xam dara ci diine boo séenee am nataalam sax xam ne kii nit sunna la woon loolu it sëriñ bi mi ngi koy soññee di fàttali nit ñi xam la ne fàttaliku ku baax mooy fexe ba jël ci ay bind ku ñëw kon dégg waxtaan nañ fay def ci sëriñ Abdou Khadir fexeel ba boo fi jógee boo mënta jël yëpp it jël ci yenn yóbbuloo ko bu ëllëgee nga dolli bu yàggee kenn dootu la gën sëriñ maa ngi sant ñëpp di ñaanal jàmm ñu àgg ci ak euh, di siyaare kilifa yëpp lii lépp nag mi ngi koy def ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar sëriñ Mouhamad Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalifatul muridin di ñaan sunu borom yàggal ko fi saxal ko naal lii mu naalal sëriñ Touba naalal ko lislaam yàlla àggale ko ñun ñëpp ñu ànd ko moom mi ngi sant bu baax daal di ñaanal ñëpp di wax ñëpp ne ñu ngi leen di woo ci màggal gi di leen séenu di ñaan ñëpp ñëw jàmm fekk ci jàmm dundal ko ci jàmm dellusiwaat ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi di la ziar di la sargal si dina ndokkeel si tabaski bi ñu jógee nga wax ko jottali suñu nuyoo suñu ziar suñu Cheikh Abdou Khadre mu jottali ñu suñu nuyoo suñu ziar suñu Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di amaat mbégte rek di ànd ak yéen si bés bi tey ni ñu ko defee at yëpp ñaan yàlla tamit ni ñu ko daan organisé muy am ndam yàlla may ñu ndam bu mel noonu si bàkk suñ Tuubaa di fàttali rek tey dañu tase pour xool CRD. Mm. pour préparer màggalu Sëñ Abdou Khadre. Mm. imaamu imaam yi. dem mm. naa ne koy faral di waxee rek ku si nekk su ñu fi Sëñ Tuubaa bàyyi. Mm-hmm. waaw am na loo xam ne moo lay màndargal. Mm-hmm. waaw bu jotee suñ ko fàttalee ndaw yi dina nekk loo xam ne dina gëkk gëneel pour ñoom nekk gëneel si réew mi. Mm-hmm. Sëñ Abdou Khadre nag ku ko xamoon xamoon ko jumaa ji. waaw xamoon ko jiite. xamoon ko nekk imaam. ba keroog muy nekk xalif général des mourides jàngale ñu ko xamee ak jiite nit ñi donc lu jar a joxe tamit nit ñi ci exemple la nit ñi gën ko xam jikko yi tamit ñu mën ko sange jikko ñu mun ko changé toppal ko ñaan tamit li mu doon liggéey li mu doon yëngatu mbirum sëñ Tuubaa mbiri yàlla li mu doon yëngatu barke bi mu si am yëpp yàlla may ñu si ñu taas ñu si ak ànd si bés bi parce que ku nekk yaa ngi koy def mais ku nekk yaa ngi xaar tamit gënal lu mel noonu wàcc si yow di liggéeyal sëñ Abdou xaar ba li ko fa yàlla fay li ko sëñ Tuubaa fay yooyu moom mën la si am lu mu la si sampal mu doy la sëkk moo tax engagement boobu la ñu duggee si liggéey bi waaw di sàkkuwaat ñaan rek euh, mu yëpp jaar yoon ni ngeen ko daan defee ñu ko daan defee daal incha allah ngeen kontaan si suñ bi kontaan si suñ bi kontaanee tamit suñu kilifa kontaan kon xanaa damay jox léegi rek kàddu gi. Mm-hmm. sëñ bi. waaw ah, ni ñu ko waxee rek la gouvernement ñu ngi leen di nuyu di nuyu wax sa collaborateur yëpp sa adjoint préfet sous préfet mboolem se de service yi fi ne képp ñu ngi nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacke nga xam ne di nuyu ci turu Serigne Mountakha ñaan yàlla yàgg leen suñu kanam dolli seen kattan. ba dañuy bëgg liggéeyal seen maam ji lépp ñu eggale ko ci sago ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ndokkeel ci bis bi tedd ñu génn mu Iidul Adha ni nga ko waxee léegi di leen balu àq di leen balu àq ko baaxoo defee rek ak mu jot yaakaar naa lii min nan ko saa bu waxtu màggal seen baxaar jotee ñu ñëw fii ci gouverneur ànd ak comité bi nga xam ne moo yore organisation màggal seen baxaar ñëw fi teewlu Serigne Cheikh Abdou Khadre teewal fi njaboot Serigne Abdou Khadre yépp ngir jox leen suñuy bëgg-bëgg ci màggal gi ñu ko baaxoon def defee yaakaar naa miin miin nañ yoon ñëpp kon nag ñu ngi nuyu ñëpp daal di leen sant bu baax te am rafet njort ci ne nañ ko daa doxee rek noonu lañ koy doxee ndax wax sàmm waxtu su ma saa de wax yàlla màggal gi jàllee.